jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ñu ngi fii ci Cambérène seet fi koo xamante ne xale la waaye bu jógee mbooloo mu bari dañu koy topp ànd ak moom muy Niang Ballo ngeen gis mbokk yi keroog journée bi mu mujjee bëre arène nationale diggante ma guy manko ci bëre ci xeex ci wanewaat boppam ci wàllu bëre waaye gis nañ beneen Niang Ballo boo xamante ne xamuñu ko woon ci làmb dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëweel waxtaan bi ña maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. baa jiri micro bi bisimilah. Hmm. bisimilah mina seytaani rajim ginnaaw ba ma sant yàlla julli si yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur bu baax a baax a baax. Hmm. di sant waa Cambérène di leen wax mas coono ndax si làmb jun jugee xam nga. Hmm. ku xam làmb xam ni làmb dafa metti xam nga di mas mu dëkkandoo yëpp. di leen jégaluwaat bu baax a baax. ajal micro bi tuuti di leen jégaluwaat bu baax a baax a baax. bàyyi ji li maa ngi lay fay yow bu baax a baax a baax. yaa ngi am jàmm waaw maa ngi am jàmm bi ngay bëre guy manko moo nekkoon sa ñaata combat. boobu moo nekkoon sama troisième combat. troisième combat waaw. nga am palmarès bi. waaw deux victoires benn défaite. sa premier combat da ngaa def sortie bu garaaw. Hmm. dóor adversaire bi mu daan. waaw nga ñëwaat sa deuxième combat. Hmm. ay dara daan la. waaw troisième combat bi nan nga war a ñëwee ak mbooloo mi la war a gunge stade. troisième ba ma jugee sama combat bu ma ñàkk. Hmm. sama combat bu ma mujjee noonu bu ma ñàkk. Hmm. ba ma si jugee si dimanche bi lundi dama dem entraînement. lundi ba nu may amaatee combat ma guy manko maa ngi entraînement ba nu combat bi taxawee ba nu may demee stade. Hmm. deux jour deux jour avant la gëj entraînement deux jour avant laa mujjee. waaw nekkaat si entraînement bu baax a baax a baax di wax ni gars yi yàlla moo doon may ndam mais jour boobu moo ma xañ. ba mu si jugee xam naa lu ma lu ma lu ma lu ma xañ ndam li. Hmm. loolu nekk si lu ma war a nekk. bi nga bi nga bi nga daanoo. ba ñëw fii. Hmm. moment boobu lan nga yëg ak mbooloo mi nga war a déplacé di leen indi arène nationale moment boobu lan nga yëg. waaw moment boobu noonu damay doon marché bu booy ndax. dafa mel ni ma daan ndax ba ma ñëwee si kër gi dafa fees dell. Hmm. booy ni ma ñang ma la sa maa yi merewul la jàppalul la dara. nekkaatal say entraînement xam nga ma déglu ma booy wax ma nekkaat samay entraînement. bu mu ñëwaatee gis nga borom bi may ma ndam. si hmm. kaw guy mango di ko ñaanal moom su amaatee combat yàlla may ko may ko ndam quoi. Hmm. Hmm. Euh, sa diggante guy mango la ñuy ñëw. dañoo gis beneen ñang mbaalo bu ñu xamuloon. avant combat bi. ñang mel ni kenn fitt bu mbër sànni daal kenn xamul fu ñang ñang lu ko nit jege mu mer ñang daal man comprendre moo lan la waaw gis nga combat boobu yow da nga gëstu combat boobu ba nga ñëwee gis nga Boy Faye sama ginnaaw hmm. xam nga gis gis giro hmm. xam nga ay champion la si làmb Faye dafa voyagé woon si làmb jooju noonu ñëw indil ma ay bagages yu yéeme billaahi wallaahi man xaw ma sax nu mu demee noonu làmb jooju noonu hmm. di ko ñaanal moom Boy Faye yàlla may ko combat arène Hmm. di ko ñaanal bu baax a baax a baax di ko wax man maa ngi si ginnaawam tey maa ngi si. li la yëngaloon du xabtal ak yooyu. waaw xam naa bay bagage su fay la rek. xam nga fay moom xam naa ne moom xam nga. waaw ay bagage am la indi. xam nga yaa ma gën a xam. fay de def la ay def la mbir. waaw mais dinañ ci ñëw. def la mbir ngay ci <laughs> sa combat yaa guy manko. at bi bi sifflé na. ngeen bëree mën nga ma expliquer. Mm-hmm. première action bi nu ngeen bëree. ak nan lan moo xew ba nga jékki-jékki rek daw. tëb barrière yi génn. Mm. lan moo xew ci diggante boobu. waaw ndax xam nga. combat boobu noonu ba mu taxawee. Mm. am na ñu bëri nan ni ma booy boobu moomu man. moo la waaw ñu bëri ndax nee man xaw ma woon ku ma doon bëreel quoi ndax kooku champion la. Mm. moomu man ma xam lu ma xam ñëw mais première action bi dafa def quatre appuis ba ñëwee noonu dañoo ñëw mu dóor ma ko mu dóor ko ñu raak xam ma mu arrière ma daw ma affronté ko dóor ko ku mu rëpp ma faax ko mu rëpp quatre appuis. arbitre bi sifflé man pour man làmb ji jeex na quoi. Hmm. après si la arbitre bi ñëwee ni ma làmb ji jeexul ñëwaatal. Hmm. ma kat mooy loolu mu ni ma làmb ji jeexul ma bërewaat xam ni jour boobu noonu. maag booy boobu noonu suñ doon bëree fii ba suba non non du am dara quoi. Hmm. du am dara ndax xam naa fu ma ko teg bu baax a baax a baax te yabuma waa Cambérène ñu def mobilisation boobu parcelle xam nga. Hmm. ñëw may asaaloo sama komba hmm. loolu non non loolu. du ma ngeen jàppantewaat nga kal ko noonu. ba ànd ak moom daan ko jël ba. waaw dañu jàppantewaat mu may buddi. ma kal ko kalu biti quoi. wéer ko sa poids wéer ko sama poids mu daanu. mu daanu. ñu jékki-jékki dégg ni guy man euh, ñang mbaalo CNG bi convoqué nañu ko mu dem fa lan la convoqué lan la CNG bi convoqué ak lan nga def ak ba nga demee lan lañ la wax bilaahi CNG convoqué na ma CNG convoqué na ko ma ma dem foofu noonu hmm. yee nee na dama doon jot rek alkaati yi hmm. xam nga loolu lan ma convoqué ma dem ñu laaj ma ma tontu leen ñu laaj ma ndax man man Baye Jili man moom du ma fen ko waa man damay wax dëgg. waaw gànnaaw alxuraan man dëgg bi loolu la loolu la wax. ñoom ñoo ni ma yow. Ah. dégg naa da nga doon jotel ak alkaati yi. Ah. xam nga. Ah. micro bi tuuti waaw ma doon jotel alkaati man leen man jotew ma alkaati yi dama doon dugg si biir géew bi. ñu ni ma doo jaar fi man leen woy damay dem sangoo fee ay bitéel ñu ni ma doo jaar fii ñoom alkaati yi tëj bunt bi. foofu ay barrière la. ma bàyyi foofu ñoom ñu ne ma demaat ba si beneen barrière bi. waaw tijji barrière bi jàll. waaw benn zemi bi ñëw xam nga rek. ni ma bàyyi doo jaar fii ma ne ko non chef damay dugg. Hmm. mu wax xëccantu foofu ñu xëccantu ma dem dugg lool lan ma convoqué. Hmm. aj ma si six mois. six mois lañ laaj. billaahi. mais li la doon def loolu yow la. waaw non lépp rek xam nga rek. waaw nekkul luñ tay tamit a ndax xam nga làmb da ngay am say mboq. Hmm. am say gaan ñoo xam ne dañ lay yéene a doon ànd xam nga. te fii Sénégal dafa am ñoo xamante ne nii xam ay borom baax la nan may ñaanal di ma jàppale. Hmm. di ma jox ay affaire yoo xamante ni amaana xam nga nu ma ko warul woon defee wala loolu daal maa ngi koy métti lu maa koy ñaawlu xam nga loolu ma def ban aj ma siiw ma. Hmm. di leen jégalu ñoom CNG xam nga. Hmm. di leen jégalu bu baax a baax a baax. bu ëllëgee dootoo defati loolu. non du ma defati loolu. ku la jox xabtali. fay la booy fay moom ko jox. léegi bu fay indi dee xabtal nga def la. fay dan xaar ba làmb jeex. <laughs> non non xabtal. Ah. fay moom yu yéeme. Ah. billaay wallaahi. Ah. waaw wala ba si des ci digg géew bi ngeen laale foofu xabtal. moment yi moo ko laalee laa ko wóolu woon laalee. ah da ko laal te heure laal bi jotul. laal bi jotul. waaw. billaay wallaahi moo jéggalu dinañ la baal mais bu ëllëgee nga may bàyyi ci xel moo ngi si grand as mhm. waaw di ko wax maa sa coono teg naa ko coono na ko waa barki alxuraan mhm. subaa ngoon guddeeg bëccëg moo ngi si mhm. ak Seex Caam ñoom ñoo ngi si def nañ recours xam nga pour gars yi ko man dama bëgg a gars yi baal ma ko waa bu mu jox ñu wàññi ko bu di jéggalu waat xam nga président Bira Sène sunu papa la sunu kilifa la xam maa ngi koy jégaluwaat bu baax a baax si at yooyu noonu xam nga loo xamante ni teg nañ ko suñu kaw. Hmm. di ko jégaluwaat bu baax a baax a baax di ko wax ñun ay xale lan. Hmm. ñun làmb lan am. Hmm. ban ma ajee ba tey bàyyi jili daw ma entraînement maa ngi fii. si non da nga war a entraîner nag. Ah. da nga war a entraîner bilaay walaay bu ñu xëyee baal la rek nu mu demee. xam nga te léegi temps yi liggéeyu seret daa metti xam nga. tabaski bii di ñëw gaan. tey nañ sax bàyyi sama weccit sax. loolu ni barke alxuraan CNG bi waaw. ñaata mbaa. Hmm. xaw sax xaw ma ba xam. reliquat bi xaw ma. Hmm. xaw ma. Hmm. di leen wax yooyu noonu yëpp ñun làmb lan am. barke alxuraan ay xale lan. lii nii si loon bëgg terele suñu yaay ak suñu papa ak képp ko yaakaar su ñun. xam nga. ñun soo leen ñu teree làmb wala ngeen aj ñu ne nii dawaliwaat seret. xam nga dawal seret instant yii ni ñun bala. waaw yaa ngi ko dina la baal dina la baal dina la baal. nga baalaale tamit xam nga. kii Baba Jaxal. Baba Jaxal ndeysaan waaw xam nga ndax moom tamit xam nga xale la champion la gis ngeen keroog mu indi asaat. Mm-hmm. xam nga nga ñuy jégalu maa ngi moom lan li woon doo foofu noonu. dinañ convoqué si mardi bi waaw moom moo ñu mm-hmm. ko mm-hmm. ba mu génnee mu dugg. xam nga booy Baba Jaxal tamit di la wax. peer nga baal nu maag moom ñëpp ñun ñaar say doom lan ko waaw ndeysaan say doom lan ab koo xamante ni nan la aj ndax ñu lii moom dootuñu ko defati xam nga man damuma seize saaguma arbitre dajuma hmm. arbitre xam nga hmm. amaana waaw te foofu tamit daam ñuy filmer waale si pet yoo xamante ni bokkul <laughs> yeneen journaliste yi ko wax gars yi rek mais amaan yeneen média yu nekk si suuf <laughs> ci biir CNG bi barke alxuraan la sikiri kóol nag la duñ yore xam nga ñooñu tamit seen doom lañ yeneen affaire yi suñ ko filmer ba si yaaga toog xalaataat ah. dañ koy supprimer quoi ah. ndax nekkul loo gis rek wax. ndeysaan la baal dee la jégal dee la jégal dee la jégal ma lay jaajëfal bu baax xam mm. naa ne dégg naa. Mm. ñu ngi démarché waat sa yeneen combat. am na yeneen promoteur yu bëgg sa combat. Mm. yan adversaire nga jàpp ne actuellement lamb mën na la boole ak ñoom. waaw man de baa man moom benn tuutànk laa nekk écurie dóor dóoraat xam nga. lamb booleel rek. boo xam ne gars yi waxtaanee nan ko ba déggoo. Hmm. ku ma làmb boole rek damay bëre ak yow. Hmm. billaay wallaay te hmm. baa ji làmb ji instant nii am nan kenen ku teewaat. te man booy bu ma siy bëreel li nga xam ne am nga combat. waaw gars yi nee naa leen man du ma bandi me nante la lu loolu loolu mooy lan. moo ngi nii baa ji li gaay du nay bandi mais nante la nante la waaw ndax gaay da am fenn foo xam ne dañ fa dëkkal gaay te gaay dëkkuñu foofu Mm-hmm. barke Serigne Touba Mbacké mm-hmm. ñun xam nga fii lañ dëkk Cambérène mm-hmm. fii dëkku diine la dëkku lislaam la dëkku maam Seydi fii yooyu amu fi waaw fii non à la violence la dëggal jubal leeral waaw kase si la ñuy dox di ñaanal nag sama gaa yu si jàpp si combat bi yëpp ñaanal gaa yëpp ñoo xamante ni ñëpp jàpp nañ si combat maa leen di sant di leen gërëm sama booy rungaas gi xam nga booy ndaw yi fan si këram ñang baalo yi xam nga ñaanal ñëpp waa Miami City waaw waa jili fii mooy Miami. fii mooy Miami fii mooy Miami <laughs> City. mais gis naa ci say ah. fan club bi ay xale yu baax sax. waa ji nga affaire ñang baalu moom mooy loolu. Ah. soo ñëwee lan la ci may soxla rek. <laughs> barke sëñ Tuubaa ak roman bi yëpp. ndeysaan Baye Laat tamit xam nga ah, Baye Laat jàpp na si lamb Baye Laat Njaay sama xarit bu baax Baye Laat barke alxuraan ndeysaan wallaay ba ma gars yi liiwee nii dama ko woo xam nga man CNG aw ma fa connaissance wala yooyu noonu. Mm-hmm. dama ko woo ni ko laat xam nga say grand frère xam nga wax leen ñu jàppale ma dem ñaanal ma si si ma ne sama waa ji CNG bi pour ñu baal ma. Hmm. na baay ji li man baay keroog gis nga lu ma indee sax. Hmm, hmm, barke alxuraan. man damay mobiliser làmb mayaguma juróomi dërëm. barke alxuraan gars ñoo si jàpp ñu jënd tigga ñu may ko booy ñëpp dem stade. Mm-hmm. waaw monsieur le maire Cambérène bi tamit xam nga jàpp na si làmb ji may na ma tisat mm-hmm. jox na ma enveloppe bu am solo. Mm-hmm. xam ak yenn gars yi ay soop yi. Malick Sandiaye xam nga day jàpp ji xam nga. Malick sama boy la waaw day jàpp si <laughs> làmb ji. Uh, Baye Mass. sama benn gaan bu ak Papa. xam nga ak Bamba ñoom jàpp nañ si làmb bu baax a baax a baax. xam nga soo limee nag da ngay juum. borom sereet yi. gars yëpp. billaahi wallaahi baa jiili hmm. man baa jiili mbër bu ndaw laa de mais su ma su may bëree hmm. non lu may fere sax mbër bu mag du ko fere non doo mbër bu ndaw alxuraan kasa bu ndaw nga am rek waaw waaye li ngay indi bari na ay mbër yu ñuy fay ay millions indi wuñu ko barki alxuraan te xam hmm. rek yéen a gaa yi si war a jàpp ñun baa jiili loolu rek moo xaw a des suñu côté su si gaa yi doon jàpp ni nga gis beneen mobilisation bu garaaw ndax ñun ay baay fa ñun fun fun tarre yeenu fa tarreel la barki alxuraan su ma bëree ba pare baa jiili fii laay toog su ma bëree ba si lendemain bi su ma demee maaru ñëw fii laay toog. Hmm. su ma amee combat fii laa koy préparé. fii mooy gétt gi. fii ba dara dul dara lan fi nekk. Hmm. fii lépp lu mel fii moo nu ko def. fii hmm. nii. billaay wallaahi. di ñaanal nag képp ku naan Ali Accor. Ali ah, Accor waaw waaw ndax ñun ay borom seret Ali Accor yaa ngi gis waaw di jaaral képp ku naan Ali Accor képp kuy yeewu rek xam nga di takk sa fas di dóori waa di leen wax noon la xam ñun duñ tàllal loxo kenn duñ mm. yalwaan kenn mm. lépp luñ am fas ak seret moo nu ko may mm-hmm. barki alxuraan lépp luñ xañ tamit waaw lépp am moo nu ko may lépp luñ ñàkk moo ko xañ mm-hmm. te ñu ngi si am lu baax di si teral suñuy waajur xam nga mm-hmm. di si waaw lépp daal baa jiiri tawfeex daal ndeysaan tawfeex maa lay jaajëfal bu baax kontaan naa ci teew bi ma leen fàtte ñu caabi féete ginnaaw. Mhm. sama lama ji paase ñoom laa ko may. xam nga chaque jour dañuy déggante. Mhm. maa leen di sant bu baax di leen gërëm. Mhm. bu dee nag dama wax loo xamante ni nii du noonu. rafet maa ngi jégalu ñëpp. lépp rafet billaahi di ñaan yu baal waaw di ñaanaat bi laa seen. jégalu waaw seen. seen ma waay. ah da koy bàkk. waaw seen jaali dem ma seen. seen jaali dem <laughs> ma seen. ndeysaan ndeysaan ndeysaan koy jaajëfal bu baax moom Niang baalo vraiment ay xale lañu di wax rek message bi nga xamante ni lancé nañu ko ci CNG bi xale la Baba Jaxal xale la mhm. tooñ nag lu mu rëy rëy baal moom moo ko gën a rëy jéggal leen te xam ni seeni doom lañ bu ëllëgee yu mel ni mu bañ leen a dalati mhm. ndax nag yaakaar naa ne doom dóor moom yadu njëkk bi daa war a dal te yat wi dal na fi mu war a dal xale yi ñu ngi jéggaluwaat bu baax mbokk yi di leen jaajëfal ci fii ñu ko fekk ci bërëb bi gis ngeen nag bi gis nga fas yi gis ngeen xale yi ñu nekk ay xale yoo xam ne ay xale yu am jom lañ xale yoo xamante ne ay xale yu nangoo liggéey ay xale lañ yoo xamante ne vraiment fii ñu dëkk saa su ne ñu ngi fii jéem a góorlu lépp lu ñu am ñu indi ko fi kon ñu leen di jaajëfal bu baax. Mm. di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew la am jërë ngeen